jafandul lu tax su ma yeboo di la ñaanal eh, yow yaa Internaute sanslimitesn.com bienvenue bienvenue dans votre émission Tiki Taka Sport Tiki Taka Sport nuy benn émission sportive boo xam ne nii euh, la rédaction de sanslimitesn.com moo leen koy euh, jagleel émission bi tey ñu war a wax ci championnat européen yi wax ci euh, li nga xam ne moo di coupe du monde basket bi amoon ak les actualités sportives yoo xam ne nii amoon na ci semaine bi Ligue des champions bi nar a commencé ak sunu gaynde yi ñu gis Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly nga xam ne daaw ñoo jote woon phase de poule yi ren aussi ñu nar jote waat Naples mooy recevoir Liverpool ci stade São Paulo nga xam ne euh, daaw bu ñu xoolee euh, bu ñu. kii Liverpool ak Napoli dañ fa dañ fa nuyuloon mais dañu gisoon également retour bi Liverpool dafa gagné mais ñu xaar ren Kalidou Koulibaly ndax ren dañu duñu jël seen revanche ci ci ci Liverpool nga xam ne moom mooy tenant du titre Sadio Mané bokk ci meilleur attaquant d'Europe bi ñu koy xaar vraiment mu def match boo xam ne nii tey ñu bëri di yaakaar ndax dinu dugal wala du dugal ñu ngi xaar seen euh, commentaire en en en dessous. Euh, beneen xibaar buy jëm ci wàllu euh, Sadio Mané mi nga xam ne. sanslivinescent point com moo leen koy jagleel en exclusivité ñu xamal ni Sadio Mané mi ngi euh, discuter ak club bii di Liverpool di prolongation euh, contrat wu Sadio Mané mi ngi war a jeex ci 2023 mais de selon suñu naataango yu sans limite sn point com bien sûr euh, ñi nga xam ne ñuy suivre actualité sportive boobu noonu ci Liverpool nee nañ Sadio Mané war na am benn revalorisation salariale bu am am am solo bi nga xam ne ginnaaw club yu mel ni Real de Madrid ñu ngi koy topp ak club yu gën a mag ci Europe ñu ngi xool ay suivre ay performance am kii jàpp ne club Liverpool di Jurgen Klopp dafa bëgg a feere li ñu naan joueur bi nga xam ne moom mooy atu majeur am fi mu toll nii ci wàllu attaque bi ñu gis Sadio Mané ginnaaw ay jàmm mu nañ ko woowee noonu ndaxte après son problème comme on, comme on a dit hein, avec euh, son compère d'attaque Mohamed Salah ñu gis euh, jàmm dafa mel ni ñëwaat na ndax bi ñu xoolee match bi passé nga xam ne Liverpool dugal moo dóor Euh, ñetti bii ci dara Sadio Mané sax dugal ñaari bii yoo xam ne nii yu ràññeeku la ginnaaw boo xam ne ni euh, euh, boobee tamit Mohamed Salah dugal na bii mais bi ñu xoolee bi ñu Salah bi mu dugalee bii bi dañ gis Sadio Mané dem fekk ji ko euh, bi Sadio Mané dugalee tamit ñu gisaat même action bi bi match bi jeexee nag Sadio Mané réagir na selon suñuy confrères yi nga xam ne moo nekk Canal Plus euh, ci micro Stéphane Guy di xamle ni que euh, moom ak Salah lépp li nga xamoon moo nekkoon ay jixi jaaxa wala ay problème yu amoon réglé nañ ko ba comme il di en ces termes ils sont redevenus de bons amis. bu ñu génnee ci loolu dañuy dem euh, championnat de France Idrissa Gana Gueye ak euh, Paris Saint-Germain euh, di enchaîner rek troisième victoire de suite pour sa troisième titularisation ñu gis match boo xam ne nii xaw na difficile trop ci parisien bi Neymar bi nga xam ne moom mooy revenir un peu ci sur la scène francaise euh, bi mu nekkoon matcham bu njëkk ginnaaw bi nga xam ne dëggoon nañ ko coow mercato beeg euh, day dem Barcelone du dem ñu gis après blessure bi nga xam ne jotoon na ko contracte janaan daanaka ñeenti weer jotu woon football mais bi mu ñëwaatee wane na boppam def na match bu rëy dugal benn but à la quatre-vingt-dixième minute bi boo xam ne nii vraiment c'est une bu am vraiment euh, lu lépp lu ñuy xaar ci ci ci grand jour def ko doon ko xaar ci star bu mu wane li mel def match bu rëy tamit également vraiment match bi yoo xam ne ne lépp lu ñu doon xaar ci moom keroog wane na ko ci stade bi Neymar bi nga xam ne supporters yi daanaka saaga nañ ko indi nañ ay banderole à son effigie wax ko wax ci famille am wax ci papaam bu mu match bi jeexee ñu gis mu def loo xam ne daaw ko def daal di jàkkaarloog journaliste yi dem jël caméra yi xamal leen ni leen moom na ko supporters yi continuer di yuuxu di ko saaga yooyu noonu moom doolu def ko dara ndax moom day football ngir club bi ngir ñu ko bëgg ak ñi nga xam ne ñooy ay proche am mais moom li nga xam ne mooy supporters yi lu ñu koy yuuxoog yooyu amul dara lu ñu ciy wax xamal na leen na nag désormais ko moom déjà match bu muy football ci à domicile day mel ni à l'extérieur lay football loolu message boobu la amoon lu ñuy jàllale ci supporters yi. Euh, gannaaw Idrissa Gana Gueye ak euh, Sadio Mané beneen lion bu illustré wu waat ci championnat muy di Salif Sané nekk défenseur central fële ca Schalke 04 ci championnat Allemagne ñu gis na bi dugal na bi bu rëy boo xam ne nii euh, dina jox une bonne nouvelle pour l'équipe d'Aliou bi nga xam ne ñu ngi xaar match amical bi mu war a octobre incha allah Singapour ak euh, équipe nationale brésilienne ñu xaran nar xaar ci match boobu ay joueurs yu ci mel ni Neymar Thiago Silva nar a jàkkaarloog ñoom Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly bi nga xam ne sax jàpp nañ ne bokkoon na vraiment ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, jàmbaar yi gënoon euh, ràññeeku ci match bi mu doo Napoli doon football contre Sampdoria vraiment def match bu rëy ñu gis mu doon def pressing bu o di def ay relance yu baax ba vraiment noté nañ ko ay match note yu gën a supérieur ci ci ci match bi ñu gën a xalaat euh, ci beneen actualité rek buy concerner euh, Idrissa Gana Gueye bi nga xam ne gis nañ match bi mu nekk buñ mu football contre Strasbourg ñu gis analyse yu bëri dañ ko gis ne dafa nekkoon un peu en difficulté ci euh, millier terrain bi euh, dem nañ sax ba ay yenn commence chroniqueurs yi commencé di xalaat ne association ak euh, kii di Marco Verratti est-ce que réellement tandem boobu noonu luy dox la ci Paris changer bi ndax bi ñu gisee Eder Herrera bi mu duggee gis nañ vraiment match Paris dafa gën a yomb seen milieu terrain alors que mi ñu bëri dañ jàppoon noyé ñu gis Idrissa gànn Gueye pour la première fois mu mel ni ku xawoon sonn dem ba mel ni kuy dox ci terrain bi dem ba nga gis analyse sportif yi commencé di xalaat ne réellement Idrissa gànn Gueye ak Marco Verratti est-ce que seen association Euh, loolu mooy meilleure euh, composition bu Paris Saint-Germain mun a def ci milieu terrain bi ñu xool danger la parce que bu ñu xoolee Ander Herrera moom day football milieu terrain comme poste numéro 6 bi nga xam ne Idrissa Gana Gueye moom lañ ko jëlee fële ca Paris Saint-Germain ñu bëri nag ñi ngi xalaat ne bu fekkee ni ñoom ñaar mun ñu leen associé kon faaw am kenn koo xam ne ni moom moo nara toog ci bi te jàpp nañ ne Verratti comme moom mooy métronome du milieu terrain Gana gay est en danger loolu ñi nga xam ne ñun ñooy les journalistes de foot ñoo taxaw di ko xalaat ndax interrogation yu ñuy posé wu yeneen interrogation bu concerné beneen joueur équipe nationale muy Moussa Konaté nga xam ne dafa blessé waat mu nekkoon sa énième blessure avec Amiens Moussa Konaté nga xam ne mercato bi tuddoon nañ ko ci club yu bari mais finalement il a pas pu signer ailleurs dafa toog mais gis nañu blessure yi dafa commencé sonal daal te asson son âge ñu nekk nekk jeune mais dañ gis ne ba léegi tojogul alors que mi ngi commencé jëm âge beneen jeune bu tojogul ba léegi Moussa Wagué la nekk fële ca Barcelone ñu gis ne malgré que mi ngi fubal ci équipe bu mag dafa am problème mu temps de jeu ba ñu ci bëri commencé di interroger wu est-ce qu'il a fait le bon choix de rester au FC Barcelone malgré que mi ngi côtoyer des grands comme euh, Messi mais dañ jàpp ba léegi ne doyul ndax bu ñu gisee performance bi mu defoon ci kaan bi ñëpp dañu gisoon dafa manqué de volume de jeu manqué aussi de compétition ndax loolu aussi du nekk danger ci moom ñu gis sa beneen footballeur boo xam ne xawoon na manqué volume de jeu Cheikhou Kouyaté di revenir aat daan malgré que match bi mu football euh, Tottenham dafa leen écrasé en 4 buts à 0 il n'a laissé aucune chance à l'équipe de Cheikhou Kouyaté Euh, beneen Lyon bu commencé ñëwaat en jeu moom mooy Keita Balde ñu gis euh, match Monaco bi malgré que gëjoon na football mais euh, il a permis à son équipe de marquer un but malgré que dañ leen fekk seen terrain Olympique de Marseille moo leen fekk dóor leen 4 buts à 3 seen biir dëkk mu nekk une mauvaise performance de l'équipe de la principauté mais nag ñuy gën a bàyyi xel performance su sunu joueur bi di Keita Diao Balde malgré que ne gis nañ mu nekkoon ci ay situation yu difficile ñu xalaat di ren war na bokk ci joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo nar a téye AS Monaco pour maintenir ko ci Ligue 1 bi pourquoi pas sax jéem a xool leneen ci Europe bu ñu demee Angleterre ñu gis euh, jour bu mel ni Ismaïla Sarr doon football. Euh, contre Arsenal ah Watford la nekk mais jotul dugal mais defoon na match bu ràññeeku Watford def match bu rëy bu ñu xoolee contre Arsenal nga xam ne daf ko mëne woon 2 buts à 0 mais ils sont revenus à la au score ba 2 buts partout lañ mëne à la fin du du du, du match. Euh, fi nga xam ne moo di championnat de Belgique ñu gis euh, Krépin Diatta fubal na. Euh, dugal bi euh, équipe bam bu doon football contre FC euh, cercle de Bruges ñu gis ne Crépin def match bu rëy wane fi boppam ci rencontre boobu aussi Mbaye Diagne duggoon duggoon na mais jotul dugal Mbaye Diagne moomee sax am na benn scandale boo xam ne lu ñuy woowee mini scandale boo xam ne ni jot nañu ko fi tudd ndax lu ñuy woowee benn journaliste foofu nee nañ dafa amoon ak moom ay jiixi jaaxa ba mujjee confisque téléphone am affaire yi jur na ay coow lu bëri mais xam naa dinañ ci ñëw ak yéen ci yeneen xibaar ci wàllu. woowee Ligue de champions toujours ñu gis euh, FC Bruges euh, de Mbaye Diagne de Crépin Diatta nara jaayoonte ak son ancien club de Galatasaray Mbaye Diagne mi nga xam ne moo nekkoon euh, ancien but meilleur buteur de la du championnat de Turquie nar a delluwaat foofu noonu mu nar nekk duel bu épique entre son ancien club ñu koy souhaiter bonne chance pour ce match là qui sera opposé au Galatasaray ce sera ce mercredi à 17h. ñu jàll ci euh, beneen euh, compétition championnat européen yi ba léegi ñu dem fële ca Turquie avec Papis Demba Cissé le lion qui ne meurt jamais Papis Demba Cissé qui a inscrit un doublé avec euh, Antalya Sport ñu gis ne malgré l'âge Papis Demba Cissé ba léegi mi ngi continuer def ay performances dans le haut niveau ndax championnat turc quoi qu'on dise quand même c'est un championnat assez relevé ba comme chroniqueurs yi bari ñu ngi commencé interroger pourquoi pas un retour de Papis Cissé en équipe nationale ndax euh, gis nañu problème mu attaque bi ba léegi euh, Sénégal dafa am problème buteur ndax Papis Cissé bi muy nekk fi daan dugal kon pourquoi pas un retour de Papis Demba Cissé en équipe imposé wu donte ñu bëri dañ jàpp ne magal na magal na ki magalul nag mooy Habib Diallo mi nga xam ne moo nekk sms di def ay performance yu baax nekk vraiment xale boo xam mi ngi am 21 di depuis daaw ba léegi di def ay performance yu constant di dugal di def ay match yu rëy ñu bëri di ko xaar euh, équipe nationale ñu ngi xaar sax xëy na peut-être euh, match bii di ñëw nga xam ne Sénégal war na ko football ak Brésil ñu xaar Habib Diallo pourquoi pas Habib Diallo en équipe nationale en tout cas observateurs yi ñu ngi koy xaar. ñu ngi koy xaar ba léegi ñuy jeexal foofu sunu suñu page foot jàll ci basket bi nga xam ne coupe du monde de basket moom moo am Espagne moo ko gañee ci digganteem ak Argentine ñu doon xaar France ah France nag nga xam ne moom moo éliminé team USA comme on dit ah, en quart de finale ñëpp doon leen xaar ci finale bi mais dañu gis ne Argentine daf leen éliminé en demi-finale ñuy jàpp ne ils sont tombés dans l'euphorie de la victoire contre le team USA malheureusement nag bon. ça leur a joué une mauvaise tour ndax euh, Argentine éliminé la les Espagnols qui sont venus à bout euh, des des des Argentins un duel entre hispaniques euh, ñu gis na ñu mel ni ay vétérans yu mel ni Marco Gasol nga xam ne ñoo bokkoon ci frère Paul et Marco Gasol ñëwaat vraiment 13 ans après muy def ay performances gagné équipe bu Argentine bi nga xam ne ñu bëri doon nañ ko xaar France nag lajj na ci demi-finale yi ginnaaw bi ko. Argentine éliminée mais teewul jël na troisième place parce que am na médaille de bronze euh, ñoom ñoo gagné Australie. Tiki Taka Sport. c'est déjà terminé mbokk internet yi li moo nekkoon seen émission bi nga xam ne sanslimitesn seen point com moo leen ko doon présenté mooy émission bu bees boo xam ne nii day jëm ci wàllu sport euh, ñu gën ci ràññee football mais dañuy waxaale aussi yeneen xeet tàggat yaram yi nga xam ne euh, du ñu gën a xool nag ki nga xam ne mooy jëru équipe nationale yi nga xam ne ak euh, internationaux yi club yu ñuy évoluer ak lépp loo xam ne mooy concerné actualité sportive de manière générale ñu ñëw leen ko fii si seen site en ligne www sans limite sn point com di leen wax rek ngeen abonné suñu chaîne YouTube sans limite TV n'oubliez pas aussi de d'activer la cloche de notification kii di recevoir yëpp suñuy vidéo yi ñuy def en exclusivité à la semaine prochaine bye bye sur Tiki Taka Sport lu